Samuel Sarr ak ñenn ñu ci bëri ci gouvernement bi nga xamante ne moom la wutu woon euh, ngir ñu mën a toog ñu mën càmbar la ñu yoroon waaye fi mu toll nii ñu ñëw ci wàllum suuf deuxième étape bi ndax du nekk euh, ñu tàmbali tere leen ñu génn ci territoire bi pour ñu mën a xam lan la ci nit def ak lan la ci nit def. <coughs> yaa ngi comparer d'abord ñaari situation yoo xam ne kenn mënu leen comparer contexte yi bokkuñu. Mm-hmm. xam nga tappale ak ay fen ak jaay doole ak loo xam ne. jub la jubal ak jubanti maanaam yoonu dëgg mhm. Youssou Ndour dafa ne boo ci nekkee di dem bul ragal a wet mhm. te le président Bassirou Diomaye Faye ci yoonu dëgg la nekk comparé à Macky bi nga xam ne yoonu tappale la nekkoon yoonu njubadi ah, da doon càmbar alalu alalu réew mi je m'explique yoonu triyande sénégalais yi mhm. euh, jaay leen doole maanaam yoon boo xam ne ay tappale dong si la nekkoon loolu nag mujjantal ba da gis ne lu waaye nekk te dëgg lalu ko rek seen xoolal mujjantal ga xoolal mujjantalu Macky Sall cela veut dire quoi que damay limité wu rek juste si Karim Wade parce que temps bi du ñu ko may Macky moo yeewu suba giñ Karim cent vingt neuf milliards de francs CFA ne Karim moo sàcc cent vingt neuf milliards waaw ñu jàpp Karim tëj ko rëbës ba damm caabi ji procès Karim ñaata la ci état du Sénégal ñàkk ci alal d'abord loolu ngay njëkk a def état bi dafa jël ay maître El Hadj Diouf jël ay avocat dépassé ci ay milliards par avocat yooyu Karim Wade jël ay avocat nga téye Karim Wade prison prison Rebeuss Karim Wade détenu yi fa nekkoon sax à un moment donné Karim tax na ba seeni visite perturbé wu mhm. Karim dem nañ ba dàq ko ci biir kaso bi nekk dootoo fa julli ndax da ngay politique ci biir kaso bi yooyu yëpp xew na biir Rebeuss par maax moom ñoo fa nekkandoo woon léegi Macky Sall ba giiñoon Karim milliards moom moo ko giñ de mhm. ñu dem si sëriñ si dem ci ñëpp wax Macky Sall tëdd tëdd si naaj bi ne du bàyyi Karim Wade mhm. Macky Sall boobu de moo yeewu suba naan café palais yeewu rek gracier Karim Wade huit heures ci guddi lu mësta am ci histoire Sénégal mësuma gis prisonnier bu ñu gracier huit heures prisonnier sax bañ nañ ko ba bu ñu la bàyyee bu six heures jotee sax gracier naka non da ko gracier mhm. bàyyi ko mu dem jëlal ko avion mu dem Qatar bi ba tey am na lu parce que. guddi gee leeg. fajar gi kenn xamul ban heure la dem kenn xamul ban anam lañ ko attribué avion. parce que lu ci mel ni grâce Khalifa Sall bi mu ko dundee génnaat na di mëne ay activité politique am normalement waaye boobaak léegi Karim yéeglu na mami mu ngi koy wax sànq bi muy def revue euh, fukki yoon ak juróom-ñaar te euh, kenn gisu ko mu ñëw wala mu yónni. waa xam nga xam nga c'était juste ma jox la exemple ne la yoonu dëgg boo ci nekkee ak yoonu tappale Macky Sall boobu. la Karim Wade yeewu la Macky Sall yeewu rek lënkaloo ak Karim Wade ñu ànd assemblée nationale Karim nekk Qatar di cëppi cëppi ñu ne nag Karim ak Macky Sall neexoo nañ kële gi ñoon dëmb tey ñëw tey ne mooy sa xarit moo lay moo lay soutenir assemblée yéen ñaar ngeen ànd yàq ay deru juge Sénégal gis ngeen scénario boobu avant les élections ngeen fan la mujjee Karim Wade est-ce que génn ngeen gis ngeen télé ñu ne cent vingt neuf milliards yooyu dara génn na ci léegi kan moo perte état moom moo perte par état jël na ay avocat ñàkk xaalis si procès Karim Wade est-ce que génn na si cent vingt neuf milliards yooyu. lan nga bëgg a expliquer ñu yeewu gracier ko donc c' est à dama la doon wan différence rek ne la maanaam bu dee si angle boobu la sénégalais yaakaar ne mbir yi fa la jëm ñu bëri ñu ngi nax seen parce que mënul demee comme mbiru politiciens yooyu ñoom Macky Sall nga xam ne lépp dañ koy lijjanti ci anamu politique autour d'une table bu ñuy wootante téléphone yow da ngay xool comme comme Idrissa Seck Idrissa Seck bi mu demee campagne bi mu yeewu suba di di fekki Macky Sall mais dafa bett sénégalais yëpp c'est-à-dire politiciens yi mhm. seeni affaire bu ñu koy def du ñu tàggu askan bi da ngay yeewu rek gis ko sur la place publique ñu ne Idi dem na fa naan café Karim wax na xam Macky nangam nangam avec ce nouveau régime là rupture mhm. dafa am foofu noonu mhm. maanaam bu kenn xaar ñi nga xam ne ñoo luubal alalu askan bi ñu koy négocier pour des raisons politiques autour d'une table ñuy wootante télé euh, téléphone autant pour moi naan dañ koy day am anam buñ koy régler sëriñ si dañuy intervenir nangam ak nangam loolu c'est impossible. Hmm. lii dafay am finalité dafay am mujjantal mujjantal mooy li nga xam ne du fayantoo du acharnement du jaay doole xam nga nit boo tegee sa njëganaay yow. xam nga li nga moom xam nga li nga moomul gis nga alal nabu koor xam nga nan la ko nit di amee. benn da koy dond. Mhm. ñaar dangay ngay sàcc te sàcc foog nga am courage am fit. Ah, am patience ñett da nga koy liggéey. ñent da nekk ci di rek toog muy dox ñeenti façon yooyu la doomu aadama de amee alal ñii nag alal ji ñu am dañ ko moomul alalu askan bi la dañ ko sàcc mais loolu dañ dañuy toog croiser les bras comme ça ñu bàyyi leen suuf si millions yi milliards yi nangam nangam te ñi nga xam ne mooy li ma la wax ñoo censé régler l'ordre social muy les préfets mhm. ils sont complices am na préfet yoo xam ne complice lañ ci affaire suuf yi de enquête bi bu jibee di nga gis préfet buñ jàpp yóbbu ko kaso moo tax ma ni la lay doon mais dakkal nañ travaux yi parce que ci càmbar la tàmbalee ñu dakkal travaux yi nga xamante ne yenn ci ay bërëb dañoo euh, euh, njortu ne euh, peut-être njuuj njaaj am na ci wala nañu amee suuf sa jaarul yoon mm. tey première étape bi ñu dakkal travaux yi fay am donte am na ay conséquence yoo xamante ne na ci topp waaye deuxième étape bi lan lay doon waa xam nga xam nga xam nga état arrêté na d'abord les travaux boo ko mm-hmm. arrêté mooy première étape bi nga wax mais deuxième étape bi mënul nekk leneen lu dul ñu édifier sénégalais leeral leen xam nga dara boo ko boo arrêté am na raison bu la motiver bu tax nga arrêté lool. xëy na état xam na ñun lu ñu xamul. wala et table président de la république am na fa ay document ay preuves yoo xam ne. Mm-hmm. wan na ko ni suuf si nga xam ne arrêté nañ travaux yi ay doomu aadama ñoo ko jël def ko seen moomeel. au détriment de ay sénégalais yu bëree bëri loolu bu amee nag une enquête moom la ñuy tijjeeku moom la ñuy tijji. Mm-hmm. Euh, càmbar mbir yi enquête ko xool ndax li ñu arrêté nii. suuf yi nekk ndar nekk fii ak fii ak fii ndax loolu jaar na yoon wala jaarul yoon mhm. bu fekkee nag enquête bi moom dafa révélé ne ah travaux yi nga xam ne nguur dafa génn benn communiquer ne zone bi zone bi zone bi lépp lu lu lu lu dul ay sànceewu état état man dakkal naa lépp loo xam ne doon nañ ko fa liggéey ñu jox descos ñu dem bind fa arrêt descos loolu nag dañ koy leeral ba mu leer nañ ci kanamu askan bi bu dee askan bi moo ko moom suite bi mooy dañ koy delloo askan bi ku war a dem kaso da dem mënul am beneen suite lu dul arrêté nañ travaux yi une enquête dañu koy mëne xool ndax yow suuf yi ñu arrêté yaa ko moom ci kan moo la ko jox ci yan anam la la ko joxe ban anam nga ko moome légal na wala légalul parce que ñaari anam ngay moome suuf da nga koy dond maire jox la ko wala nga jënd ko légalement mais bu enquête waree ne yow suuf bi boo demee Rufisque si rond-point am na ku am tur ku mag ku dëkk Tëngéej boo demee ba Rufisque si rond bi ngay dem ci teer bi nii dugg ci terre bi mais monsieur le maire dak fa daggal espace boo xam ne les Rufisquois dañ ko doon kaas mais moom benn citoyen Rufisquois ñu daggal ko ngan mu def ko centre commercial au nom de qui et de quoi yooyu moo bëri ci réew mi réew mi dafa mel ni suuf si gàttu la woon boo xam ne dañ yor seen paaka di dagg di séddoo di lekk bàyyi askan bi kon suite bi suite bi nabu mënta ah. nekk leneen leneen lu dul enquête wane ne lii yéen moo leen ko askan bi moo ko moom dañu koy delloo askan bi mu jeex loolu rek mooy nekk suite bi mu des askan wi tamit suñu waree après buñ jugee ci étape bi jotee ci suuf ak fi ñu war a jaar yëpp mu doon loo xam dafay uuteeg la daan am maanaam yi mooy transparence ci anam gi nga xamante ne noonu la ñuy joxee suuf mhm. ak aussi mu accessible ci ñi nga xam ne ñoo koy sàkku waaw xam nga xam nga xam nga xam nga ñoom Ousmane Sonko moom wax sa dëgg yàlla nit mën na leen nax fépp mën na leen triyandi fépp ñu nangul leen ko nag Cheikh Yérim laay laaj ndax affaire état ndax nekk président dafa école buñ école buñ koy jàngalee ci àdduna mais ñi expérience bi ñu am si seen liggéey seeni preuve yi ñu def si bërëb yi ñu doon liggéey maanaam xam nañu li ñu leen dénk xam nañu ko rawatina wàllum fossé yow le président de la bi mu demee Mbourkat waa ji taxaw di ko expliquer maa ngi naan sam papa kii li muy expliquer président président sax moo ko gën a xam donc cest à ñii mën nga leen triander fépp ñu nangu mais ci wàllum suuf kenn mënu fa triander Ousmane Sonko kenn mënu fa triander Bassirou Bassirou Diomaye Faye parce que loolu mooy seen liggéey dañu ko xam dañu ko maîtriser c'est-à-dire ñoom nit ñi di ko def nii ñoom avant ñuy yéeg au pouvoir xam nañ ko dañu bëgg rek mbir yi gën a leer ci ci ci bëtu askan bi ñu bañ a ne acharnement la jaay doole la mais ñoom xam nañu ko. parce que Ousmane ko yàgg na génne di ko dénoncer. ni ñuy jëlee le foncier ni ñuy jaayee doole askan bi nangam ak nangam loolu ça fait des années mu di ko dénoncer kon ñooñu bu ñu ñëwee bo au pouvoir ñu yore doole ji yor levier yor lépp kon mbir yi day gën a day gën a yomb ci moom te foog allah kulli li sénégalais yi moom Pa Ousmane ñu delloo ko les ñu delloo ko les sénégalais. mooy li ma la wax gis nga yuuxu dina jëf fuñ ko fogewul bés bu enquête bi soree dina gis juge bu ñu jàpp tëj ko kaso commissaire bu ñu jàpp tëj ko kaso préfet bu ñu jàpp tëj ko kaso gouverneur bu ñu jàpp tëj ko kaso gis ngeen Ami Ndiaye ñibbi fa mu dëkk maa ko seetaan wal fajiri les populations dénoncé ne Ami Ndiaye ñibbi bi mu nekkee maire dafay dagg suuf bi militant bu bokk APR ñu may la noonu lañ doon def suuf si na nga nga joxe sa Ami Ndiaye ñibbi député bu APR bi nekkoon assemblée nationale. waaw ñibbi waa ñibbi laa seetaan journal Walfadjri ñu koy dénoncé. Mhm. ba am ceex moom problème yu rëy ñu ne Amy Ndiaye ñibbi daal dafa jël suufu ñibbi di ko may ay militants APR ba laal ay suufu jàmbur te loolu moo am sur l'étendue du territoire maanaam yow da bokk APR gis nga suuf yi Sénégal ni ñu koy mayee ni ñu koy joxe nit ñi pour des raisons purement politiques man tëngëj gi ngeen di wax sàngalkam ña fa àndoon ak Omar Gueye. Mhm. beneen ak euh, kii nu mu Ngagne Diop ak ñeneen ak ñeneen mais dañ leen di may suuf comme nga jël tàngal bu juróom may ko nit si nga indi sa carte na nga bokk ci parti bi na nga sol t-shirt na nga mbiib mais le mérite dans sa pays lépp dafay revenir aux politiciens mais xanaa politiciens yi politique mooy ban métier dans ce pays mérite bi yëpp les politiciens lay revenir les politiciens dëkk pour nga am liggéey bu baax foog nga politique foog nga xam nit foog sa bàjjen ne ci gouvernement bi mais yooyu yëpp dañ ciy xaar rupture te avec ce nouveau régime là yooyu dootul dootul nekk sëñ bi jox hélas. deuxième point bi ma ngi sàqal lu tey euh, neex na nag ayca ñu ñëw ci deuxième point bi ñuy euh, waxtaanee ci presse bi nag. la ah, ñuy mais euh, mais mais mais ay affaire dafa am ay ay affaires yu sew. oui ah, macha allah waay. ayca <laughs> deuxième point bi ci jongoma saa limite bi ku la xamul rek lay rek lay fontoo. yaay yaay jongoma waay waay yaa jekk yaa yaa jongoma yaa mat jéeg waay. yaa mën a cuuraay. yaa mën a góobe. Oh. yaa mën a toppatoo góor. Oh. yaa rafet xol. Oh. yaa am ngërëmu ndey waay. ku la ku la xam na ku ma xam moo ma jaay sa kas nee na da nga sa ngërëmu ndey te ku am ngërëmu wéyjur moom dara jomb la ci am loolu mën bëgg sa yaay may ko monsieur ah waay non non bi mu la dee loolu mooy <laughs> xale bi jong ma pire saa kii du demi mesure de jongo bu pur sang mooy mooy mooy naa sama benn xarit boo xam ne suba teel la yeewu jàpp télé bi nee na daal xale bee koy daaneel oh, ah, nu mu tudd moom mi ngi may seetaan dafa am nag première nag ah. damay bañ bu ma fa demee bu laal tur bi waaw xam nga xam nga xam nga sama copain am ay première jabar ak yooyu su ma fa demee pour ñu toggal ma reer yu neex damay ñëw féete ci ñoom. Mhm. boo féetee feneen rek boo fa ñëwee dañ lay bàyyi nga fande. yow foo demee du yow yow coro rek nga am. ah euh, kii def